ñu ndokkeel suñu bopp ñun ñëpp. nañu ngi ndokkeel suñu bopp ñun ñëpp. bi ñu yàlla maye tey màngal ñu. bi ñu yàlla maye tey màngal ñu. ñu bis bi. ñu teewaat fi bés bi muy tono ci ñun. muy tono ci ñun. Euh, jógee ci yërmande yàlla ak teraangaam. jógee ci yërmande gi yàlla ak teraangaam. kon bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko. kon bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko. doonu dara lu mooy def ñuy del dolli ay yiw rekk ci mbaaxam. doonu dara lu mooy def ñuy dolli ay yiw rek ci mbaaxam. yiw woo xam ne kenn ku nekk ci ñun soxla na ko. yiw woo xam ne kenn ku nekk ci ñun soxla na ko. ku nekk soxla na yërmande yàlla. ku nekk soxla na yërmande yàlla. ku nekk. soxla na ma ak yàlla. ku nekk soxla na ndimbalal yàlla. ku nekk soxla na ndimbal ak yàlla. ci zaahiram ak ci baatinam. ci zaahiram ak ci baatinam. bés yu mel nii rek. bés yu mel nii rek. nga xam ne yàlla moo ñu ko màngal may ñu ko. nga xam ne yàlla moo ñu ko màngal may ñu ko. ci la ñuy mën a góorgóorlu pour sàkk yooyu ñu bëgg yëpp ci yàlla. ci la ñuy mën a góorgóorlu pour sàkk. li ñu bëgg lépp ci yàlla ñaan ko yàlla ak toroxlu ñaan ko yàlla ak toroxlu ak hóolu ak hóolu ne liñ koy ñaan ne liñ koy ñaan am na ko am na ko te defewu ko dara te defewu ko dara jaam yi toroxlu di ñaan rek jaam yi toroxlu di ñaan rek ñoom la ko yàlla di may ñoom la ko yàlla di may yal nañu yàlla boole ci jaam yooyu yal nañu yàlla boole ci jaam yooyu yaara bi ñu ngi yaakaar ne boole nañu ci yaakaar nañ ne boole nañ yaakaar nañ ne boole nañu ci alhamdulilah ndax nangu gii ñu nangu ndax nangu gii nangu nangu gii ñu nangu nangu gii ñu nangu nangul ko wéetaayam nangul ko wéetaayam gëm yonentam bi ak yonentam bi gëm gëm yonentam bi gëm yonentam bi sallallahu ak ay jàngaleem ak ay jàngaleem yoo xam ne yëpp yoo xam ne yëpp ngërmande yàlla rek la ngërmande ak yàlla rek la dañ ciy jëlee dañ ci jëlee. mbaax ak yàlla rek lañ ci jële mbaax ak yàlla rekk lañ ci jëlee. ñëwentig yàlla rek lañ ciy jëlee. ñëwentig yàlla rek lañ ciy jëlee. yàlla tàggatal ñu ñu nangu def ko. yàlla tàggatal ñu ñu nangu def ko it. loolu itam. loolu itam. ngëneel la. ngëneel la. teraanga la. teraanga la. ci yàlla. ci yàlla. jëm ci jaamam. jëm ci jaamam yi. yal nañ doon jaam yooya. yal nañ yaara bi. ci weeru koor yi nii ñëwaat na. weeri koor a ngi nii ñëwaat na kenn du leen ko jàngal ndax yéen ñëpp a ko xam kenn du leen ko jàngal ndax yéen ñëpp a ko xam xam ngeen li ci aju yëpp xam ngeen li ci aju yëpp ci ngëneel ci ngëneel xam ngeen li ci aju yëpp xam ngeen li ci aju yëpp ne yàlla dafay ful ne yàlla dafay ful yërmandeem yërmandeem yàlla dafay ful yàlla dafay ful yoolab jaam yoolab jaam. ci biir weeru koor wii. ci biir weeri koor wii. weer wu sell la. weer wu sell la. moo tax. moo tax. bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko oraat ko. bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko ooraat te ñun ñëpp. te ñun ñëpp. ñu ngi am soxla ci yàlla. ñu ngi am soxla ci yàlla. kon nag nañ ko def ci yoon woo xam ne. kon nañ leen ko def ci yoon woo xam ne. buñ ci sàkku dara lu ci eh, eh, eh, ngërmande yàlla. buñ ci sàkku dara lu mooy ngërmande ak yàlla. buñ ci sàkku dara lu mooy sellal jëmee ci yàlla. buñ ci sàkku dara lu mooy sellal jëmee ci yàlla. buñ ci sàkku dara. buñ ci sàkku dara. lu dul li nga xam ne. lu dul li nga xam ne. moo ñuy ñoŋal ci weer wi. moo ñuy ñoŋal ci weer wi. ñu jéem a nekk ci loolu. ñu jéem a nekk ci loolu. yéen ñëpp a gën ñëpp a gën a xam. yéen ñëpp a gën a xam. li nga xam ne moo aju. li nga xam ne moo aju. war a nekk jullit eh, jikkooy jullit. war a nekk jikkooy jullit. rawatina ci weeru koor wi. rawatina ci weeri koor wi. dañ koy sant. dañ. dañ koy sant. dañ koy sant. lu yoonam nekkut yoonam nekku ci. lu yoonam nekkut yoonam newu ca. koy sant. dañ koy sant. mu téye làmmiñam. mu téye làmmiñam maandu. bu mu ci wax loo xam ne. bu mu ci wax loo xam ne. daf koy lor. daf koy lor. balaa lor keneen. balaa lor keneen. bu mu ci def loo xam ne. bum ci def loo xam ne. balaa lor keneen. balaa lor keneen. yow lay njëkk lor. yow lay njëkk lor. kon nañ sàmm. kon nañ sàmm. jikko yu kawe yooyu nga xam ne. jikko yu kawe yooyu nga xam ne. mooy jikkooy lislaam. mooy jikkooy lislaam. bokk na ci ngëneelu weeru koor. bokk na ci ngëneelu weeru koor. ñun ñi koy woor ñëpp. ñun ñi koy woor ñëpp. ku ne yàlla dana def ci sa xol. ku ne. yàlla dana def ci sa xol. yërmande goo xam ne. yërmande goo xam ne. jëmee ci sa morom. jëmee ci sa moroom barke weeru koor yi moo ñu koy may. barke weeru koor yi moo ñu koy may. ku nekk ci ñun. ku nekk ci ñun. yàlla may na ko. yàlla may na ko. ci. ci. barke weeru koor yi. barke weeru koor yi. mu mën a dimbalante ak ay moromam. mu mën a dimbalante ak ay moromam. dimbalante goo xam ne. dimbalante goo xam ne. lu lu luñ luñ mën def ko ci rek dinañ ko def. lu mën def ko ci rek danañ ko ci def. te ngir yàlla moo tax ñu di ko def. te ngir yàlla dong nga tax ñu di ko def nag. ak sàkku ngërmandeem. ak sàkku ngërmandeem. ak itam. ak itam. dundal. dundal. sunna boo xam ne. sunna boo xam ne. fekk nañ ko muy suy sunnaay suñuy baay. fekk nañ ko ci suñuy baay. mu doon seen sunna. mu doon seen sunna. doon sunna soo xam ne ñoo ko fent. doonul sunna soo xam ne ñoo ko fent. waaye sunna soo xam ne sunnatu rasulillahi la. waaye sunna soo xam ne la sunnatu rasulillahi la sallallahu alayhi wa sallam. ci lañ nekk yar ci yar ci seen bopp yar ci seen mbooleem. ci lañ nekk yar ci seen bopp yar ci seen mbooleem njaboot. bépp bépp. taalibe yeeg. taalibe yeeg. doom ak. doom ak. ñëpp ay taalibe ñekk doom lañ. ñëpp ay taalibe la ñu ko doom. bon gannaaw. kon gannaaw seen liggéey kawe na. seen liggéey kawe na. ñu am doole yi. ñu am doole yi. yoo xam ne ci yàlla la bàyyeekoo. yoo xam ne ci yàlla la bàyyeekoo. sàmm. sàmm. yoon woowu ñu tëral. yoon woowu ñu tëral. ngir mottali kóllëre. ngir mottali kóllëre. suñu digganteem ak ñoom. suñ diggantee ak ñoom. waaye mottali kóllëre. waaye mottali kóllëre. suñ suñ diggante. suñ diggante. ak suñ borom bi nga xam ne. ak suñ borom bi nga xam ne. moom rek moo am liñ bëgg yépp. moom rek moo am li jaam bi bëgg yépp. te ci moom rek lañ ko mën a sàkkoo. te ci moom rek lañ ko mën a sàkkoo. bu sàmmee weer bi ni ko war a sàmmee. bu ñu sàmmee weeri koor wii. niñ ko war a sàmmee. ci suñ xol. ci suñu xol. sàmm ko ci suñu gémmiñ. sàmm ko ci suñu gémmiñ. sàmm ko ci suñu loxo. sàmm ko ci suñu loxo. nga xam ne loo ciy def rek lu baax la. nga xam ne loo ci def rekk lu baax la. Eh, eh, eh, lu baax li. lu baax li. li ci njëkk. li ci njëkk. bul tàggale sa làmmiñ ak tudd yàlla. bul tàggale sa làmmiñ ak di tudd yàlla. bul tàggale sa xol ak xelaat ci màggaay yàlla. bul tàggale sa xol ak xelaat ci màggaay yàlla. bul tàggale sa xelaat. bul tàggale sa xalaat. ak teewaayu yàlla. ak teewaayu yàlla. nga xam ne moo la gën a teew yow ci sa bopp. nga xam ne moo la gën a teew. yow ci sa bopp. nga xam ne ki ngay jëflanteet ci weer wi yëpp. kon nga xam ne ki ngay jëflanteet ci weer wi yëpp. du kenn ku yàlla. du kenn ku dul yàlla. yàlla moomu nag. yàlla moomu nag. moo la dig ay ngëneel ne dana la ko defal ci weer wi. moo la dikk ay ngëneel yow jàmm bi ne dana la ko defal ci weer wi. yi wàcc na ci alxuraan. wàcc na ci alquran. wàcc na ci xadiisu rasulillah. wàcc na ci xadiisu rasulillah. sallallahu alayhi wa sallam. suñ borom xam-xam yëpp. suñ borom xam-xam yëpp. feddali nañ loolu. feddali nañ loolu. ci seen wax ak seeni jëf. ci seeni wax ak seeni jëf. ak seen góor góorgóorlu. ak seen i góorgóorlu. ndax man fee bàyyil. ndax man ñu fee bàyyil. man fee bàyyil. man fee bàyyil. yonent yàlla muhammad. yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xaaj ci xeetam. xaaj ci xeetam. ñoo xam ne ñu ngay góorgóorlu yoo xam ne ñu ngi góor jéem a jëflante ak yàlla jéem a jëflante ak yàlla ci ni ko tëralee ci ni mu ko tëralee moom yonent yàlla muhammad moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu loolu ci ngëneelu weeru koor ci la ko weeri koor ci lañu ko yàlla di mayee ci lañu ko yàlla di mayee weer la woo xam ne weeru ngëneel kese la weer la woo xam ne weeri ngëneel kese la yàlla moo ñu ko may yàlla moo ñu ko may ci mbaaxam ci mbaaxam. ngeen ubbil ñu ay bunt yoo xam ne. ubbil ñu ay bunt yoo xam ne. mënuñ koo ubbi lu dul ci weeru koor bi. mënuñ koo ubbi lu dul ci weeri koor. jàng ngeen bu baax a baax. jàng ngeen bu baax a baax. ni ci yàlla di yokkee. ni ci yàlla di yokkee. yoolu jaam. yooli jaam bi. ci loo xam ne def ko ci weeru koor. ci loo xam ne. dafa ko ci weeri koor. ndax def ci weeri koor rek daf koy dubleel. ndax lépp lu jaam bi def ci weeri koor. yàlla daf ko koy dubleel. yàlla dina ko yombal koor gi. yàlla dina ko yombalal koor gi. dana ko yombal dundam ci weeru koor wi. dana ko yombalal dundam ci weeri koor wi. dana ko yombalal wërsëgam ci weeru koor wi. dana ko yombalal wërsëgam ci weeri koor wi. dana ko yombalal. dana ko yombalal. woyofalal ko. woyofalal ko. métti ci koor gi yëpp. métti ci koor gi yëpp. nga mën a jànkoo moom. mu mën a jànkuwanteeg moom. di julli ay waxtu yu juróom. di julli ay waxtoom juróom. di jàng alxuraan. di jàng alxuraan. di wasifa. di wasifa. di sikar. di sikar. loolu yëpp. loolu yëpp. ay ngëneel la yoo xam ne. ay ngëneel la yoo xam ne. mbaaxu yàlla rek moo ñu ci àggale. mbaaxu yàlla rek moo ñu ci àggale. yal na ko yàlla saxal ci ñun. ko yàlla saxal ci ñun yaara bi. saxal ko ci njaboot gi yëpp. saxal ko ci njaboot bi yëpp yaara bi. ñi teew ak ñi ñëw yëpp. ñi teew ak ñi ñëw ñëpp. yal na leen yàlla saxal ci loolu. yal na leen yàlla saxal ci loolu. ñu ngi bëgg. sëriñ bi na ñu ngi bëgg. ci weeru koor wi ñu nekk. ci weeri koor wi ñu nekk. ñun ñëpp. ñun ñëpp. xam nañ ne Sénégal mu ngi ci ay difficulté xam nañ ne Sénégal mu ci ay jafe-jafe. te dara mënu koo dindi. te dara mënu koo dindi. lu mooy ñaan yàlla rek. lu mooy ñaan yàlla rek. kon nag nañ taxaw ñun ñëpp. kon nag nañ leen taxaw ñun ñëpp. ñu ñaan yàlla. ñu ñaan yàlla. yal na yàlla musal suñ Sénégal. yal na yàlla musal suñ Sénégal. def ci lépp loo xam ne daf koy lor. ci lépp loo xam ne daf koy lor. yal na yàlla musal. yal na yàlla musal. Sénégal. Sénégal. lépp luy indi ñaawteef. lépp luy indi ñaawteef. diggante sénégalais yi. ci diggante sénégalais yi. yal na yàlla sàmmal ñu Sénégal. yal na yàlla sàmmal ñu Sénégal. ba nga xam ne. ba nga xam ne. xay yi dox di wëndeelu ci àddina bi. xay yi dox di wëndeelu ci àddina bi yëpp. yal nañu ko yàlla teetal. yal nañu ko yàlla teetal. yàlla bu ñu ko yàlla won. yàlla bu ñu ko yàlla won. yàlla bu ñu ko gis. yàlla bu ñu ko gis. nañ gis Sénégal gu tedd gi nañ gis Sénégal gu tedd gi. nañ gis Sénégal gu tedd gi. nga xam ne bokk na ci terangaam yu bees yi nga xam ne lu bees tàq la. nga xam ne bokk na ci terangaam yu bees yi nga xam ne lu bees tàq la. ñu ne. ñu ne. réew yi raw ci alxuraan. réew yi raw ci alxuraan. ci àddina bi. ci àddina bi. rawatina ci jullit ñi. rawatina ci jullit ñi. ñeenti réew la. ñeenti réew la. te Sénégal kenn la ci. te kenn la ci réew yooyu. loolu mooy xeex bi nga xam ne suñuy maam yi xeex nañ ko mooy xeex bi nga xam ne suñuy maam yi xeex nañu ko ngir yàlla ngir yàlla yàlla faye leen yàlla faye leen yëkkati leen seen réew yëkkati leen seen réew ba mu bokk ci ñeenti réew yi nga xam ne ba bokk ci ñeenti réew yi nga wax nañ ne fala alxuraan gën a yëkkati ko fala alxuraan gën a yëkkati ko pourtant ak réewi arab yu bëree ngi fi réewi arab yu bëree ngi fi pourtant waaye amuñ loolu waaye amuñ loolu Sénégal am na ko Sénégal am na ndax lan. Sénégal. Sénégal. nu mu mel. nu mu mel. ku bëgg diineem la. ku bëgg diineem la. Sénégal lu mu mënti mel. Sénégal nu mu mënti mel. ku bëgg taarixu diineem la. ku bëgg taarixu diineem la. ci loolu. ci loolu. yàlla nee na. yàlla nee na. boo ne boo ma nekkalee ma nekkal la. boo ma nekkalee ma nekkal la. kon nag. kon nag. Sénégal yëpp. Sénégal yëpp. ci taarixi Sénégal. ci taarixi senegaal ba ci jotaay bi. ci jotaay bi. koo gis rek dafay góorgóorlu. koo gis rek dafay góorgóorlu. nu mu nekkalee yàlla. nu mu nekkalee yàlla. mat na matut. mat na matut. waaye yàlla rek la ñuy sàkku. waaye yàlla rek lañuy ñuy sàkku. yàlla ñu ko yàlla yàlla ñu ci yàlla dimbale. nañu ci yàlla dimbale yaara bi. matal matal ñu. matal ñu. yëkkati suñuy liggéey. yëkkati suñuy liggéey. nangu ko. nangul ñu ko. éegal ko ca matukaayu liggéey. éegal ko ca matukaayu liggéey ya. bi jaay rasulillah. bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ndokkeelaat suñu bopp beneen yoon. sëriñ bi na ñu ngi ndokkeelaat suñu bopp beneen yoon. ci barke koor gii. ci barke koor gii. nga xam ne yàlla moo ñu ko màngal. nga xam ne yàlla moo ñu ko màngal. ngir dolli ñu. ngir dolli ñu. yiw yim ñu jiitaloon. yiw yim ñu jiitaloon. mu dolli ci weneen mu dolli ci beneen ñu ci yeneen yiw. ci weer wii. ci weer wii. la fekkee ko. te fekkee ko am na ñu fi nekkoon ñu bëri daaw. am na ñu fi nekkoon ñu bëri daaw. nekkuñ fi ren. tey nekkuñu fi ren. yal na leen yàlla yërëm. yal na leen yàlla yërëm. yal na yàlla àggale ci ñoom. yal na yàlla àggale ci ñoom. ne la nga la ngeen bàyyi woon ca jumaa ja ne la ngeen bàyyi woon ca jumaa ja moo fa nekk ba léegi moo fa nekk ba léegi dara soppeekuwul dara soppeekuwu ci nit ñaa ngi ñëw ngir yàlla nit ñaa ngi ñëw ngir yàlla nit ñaa ngi jokkalante ngir yàlla nit ñaa ngi jokkalante ngir yàlla nit ñaa ngi bëggante ngir yàlla nit ñaa ngi bëggante ngir yàlla nit ñaa ngi toroxlul yàlla nit ñaa ngi toroxlul yàlla nit ñaa ngi bëgg yonent yàlla Muhammad nit ñaa ngi bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg mbooleem yiw bëgg mboolem yiw. yoo xam ne. yoo xam ne. dimbale nañu. dimbale nañu. ba tëral ba teg ñu ci kaw yoonu yoonu yonent yàlla Muhammad. ba teg ñu ci yoonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci te ci mbëggeel lañ ko defee. te fekk ci mbëggeel lañ ko defee. defee wuñ ko xaste. defee wuñ ko xaste. defee wuñ ko xeex. defee wuñ ko xeex. defee wuñ ko saaga. defee wuñ ko saaga. dañ ko defee rek. dañ ko defee rek. li yàlla wax ci alxuraan. li yàlla wax ci alxuraan. ne ne. fekkoon ne am nga àddina ak li ci biiram. bu fekkoon ne am nga àddina ak li ci biiram. bëgg nga dajalee nit ñi. pour nga dajalee nit ñi. mënoo ko. mënoo ko. nit ñi yàlla rek leen mën a dajale. nit ñi yàlla rek leen mën a dajale. nit ñi yàlla rek mën a rabb seen i xol. nit ñi yàlla rek mën a ràbb seen i xol. ci seen diggante. ci seen diggante. ci mbaax googu. ci mbaax googu. yàlla am ko. yàlla am ko. di ko may jaamam yi koy sàkku. di ko may jaamam yi koy sàkku. yal nañ yal nañ bokk ci jaam yooyu. yal nañ bokk ci jaam yooyu yaara bi. nañ ko doon sax. yal nañ ko doon sax. ci suñ góor góorlu ci suñ góorgóorlu. ci suñ bëgg. ci suñ bëgg. yëpp yëpp. yàlla mën nañoo defal yàlla mën nañoo defal. yàlla mën nañoo defal. lu ëpp luñ koy ñaan. lu ëpp liñ koy ñaan. ñu gën a góor góorlu ñu gën a góorgóorlu. ci jikko yi. ci jikko yi. rafetal ko. rafetal ko. ñu gën a góorgóorlu. ñu gën a góorgóorlu. ci làmmiñ yi. ci làmmiñ yi. rafetal ko. rafetal ko. ñu jéem a góor ñu jéem a góorgóorlu. ci loxo yi. ci loxo yi. di ci def lu baax. di ci def lu baax. ñu jéem a góorgóorlu ci alxuraan. ñu jéem a góorgóorlu ci alxuraan. di ko gën a jàng. di ko gën a jàng. ndax amul dara lu mun a musal àddina bi. ndax amul dara lu mën a musal àddina bi. lu em ne alxuraan. lu em ni alxuraan. dañoo mos dem kanu ma ànd ak xalifa Cheikh sëriñ bi ne dafa mos dem kanu ànd ak sëriñ Cheikh Tidiane. buur kanu. buuri kanu. ne ñu kaay leen ma wax leen. ne leen kaay leen ma wax leen. àddina bii ma gis. mu ne ko àddina bii ma gis. jafe na jafe goo xam ne. jafe na jafe goo xam ne. pexey nit mënatu ci dara. pexey nit mënatu ci dara. toroxlul yàlla rek ñaan ko. toroxlul yàlla rek ñaan moo ci mën dara. moo ci mën dara. moo ci mën dara. kon nag. kon nag. ñu ngi leen di mu ñu ngi leen di ñaan. ñu ngi leen di ñaan. ngeen taxaw ci ñaan. ngeen taxaw ci ñaan. yàlla. yàlla. yàlla musal ñu. yàlla musal ñu. musal seen réew yi musal seen réew suñu réew yi musal suñu réew yi ci xay yi nga xam ne ci xay yi nga xam ne man gis mu ne man gis naa ko mu ne man gis naa ko gis naa loo xam ne mu ne gis na loo xam ne yàlla bu yàlla bu ko yàlla tasaare ci yàlla bu ko yàlla tasaare ci suñu réew yi ci suñu réew yi ndax benn xiw nekku ci ndax benn xiw nekku ci dara lu baax pour nit nekku ci dara lu baax pour nit nekku ci luy rey nit rek ñu rey nit rek luy rey nit luy rey nit rek koy rol lu koy lor. lu koy lor. lu koy tiital. luy tiital nit. loolu rek moo moo fa nekk. loolu rek moo ca nekk. te loolu ku ne xam ne ne nit soxlawu. te loolu ku ne xam na ne nit soxlawu ko. nit safaan ak loolu la soxla. safaan ak loolu la soxla. mooy jàmm. mooy jàmm. mooy déggoo. mooy déggoo. mooy dimbalante. mooy dimbalante. ku nekk fonk sa sa morom ni nga fonkee sa bopp. ku nekk fonk sa morom ni nga fonkee sa bopp. ku nekk yéene sa morom ci lu baax. ku nekk yéene sa morom ci lu baax. comme koy yéene sa bopp. comme ni nga ko yéene sa bopp. ku nekk loo mën a defal sa morom ci lu baax. ku nekk loo mën a defal sa moroom ci lu baax. nga defal ko ngir yàlla. nga defal ko ngir yàlla. xaaroo ku la gërëm. bul xaar ku gërëm xaaroo ku la gërëm. xaaroo ku la gërëm. bañoo ku la xas. bañoo ko la xas ndax yàlla rek ngay yàlla rek rek ngay soxla yàlla rek ngay jëflanteel yàlla moomu ngay jëflanteel nag moom yàlla moomu ngay jëflanteel nag moom moo ñu wax ne moo ñu wax ne man yàlla man yàlla xam naa uru ji bët xam naa uru ji bët xam naa li seen xol yi di nëbb xam naa li seen xol yi di nëbbu. te loolu laay jëflanteeg yéen. te loolu laay jëflanteeg yéen. yal nañu yàlla may xol yu set. yal nañu yàlla may xol yu set yaa rabbi. yoo xam ne moom yàlla xaj na ci. yoo xam ne moom yàlla xaj na ci. yal nañu yàlla musal ci uruj. yal ñu yàlla musal ci uruj. ci bët. ci bët. yal nañu yàlla musal ci uruj. yal na ñu yàlla musal ci uruj. ci jëf. ci jëf. yal nañu yàlla def. yal nañu yàlla def. ñuy taalibe Cheikh Ibrahima dëgg dëgg dëgg. ñuy taalibe Cheikh Ibrahima dëgg dëgg dëgg ndax boo jokkoo ci Cheikh Ibrahima dëgg dëgg ni nga war a jokkoo. ndax boo jokkoo ci Cheikh Ibrahima dëgg dëgg ni nga war a jokkoo. dara faatatu la. dara faatatu la. xanaa loo soxlawul rek. xanaa loo soxlawul rek. wala loo defut sa yitte. wala loo defut sa yitte. waaye yëpp a ngi nii teew. waaye yëpp a ngi nii teew. Baye a Thiam. Baye Amadou Thiam. daan nañu wax ne. sëriñ bi ne daan na leen wax ne. yëpp ay ñëw. yëpp ay ñëw. yëpp ay ñëw. yëpp ay ñëw. yëpp ay ñëw. yëpp ay ñëw. jàng ku nekk xam na ne. ku nekk xam na ne. ku dund jamono bii. ku dund jamono bii. ak jamono booba. jamono booba. di nga xam ne lépp ñëw na. di nga xam ne lépp ñëw na. lépp ñëw lool lépp loolu ñëw nag. lépp loolu ñëw nag. yal nañu yàlla may jikko yu rafet duñ ko àttane. yal nañu yàlla may jikko yu rafet duñ ko àttane. yal nañu yàlla may xam-xam bu set buñ ko àttane. yal nañu yàlla may xam-xam bu set buñ ko àttane. yal nañu yàlla may jëflante bu rafet. yal nañu yàlla may jëflante bu rafet. buñ ko àttane. buñ ko àttane. bañ mun a nekkal yàlla ba mën a nekkal yàlla. ci xol yu set. ci xol yu set. xol yu sell. yu sell. jëflante yu sel jëflante yu nga xam ne sàkkuwoo ci. nga xam ne sàkkuwoo ci. lu dul yàlla. lu dul yàlla. yal na ñu yàlla defal na ñu yàlla defal loolu. yal na yàlla musal. yal na ñu yàlla musal. ci wépp xay. ci wépp xay. di gërëm àll rabbaani. di gërëm. waa ahlu rabbaani waa kër rabbaani yi. waa kër rabbaani yi. ci seen taxawaay ci jumaa ji. ci seen taxawaay ci jumaa ji. depuis rabbaani. depuis rabaani ba ci sëtam yi toog ba ci sëtam yi toog liñ daan def rek la ñuy def ba léegi li seen maam daan def rek lañ fi dese di def ba léegi jiite nit ñi ci alxuraan jiite nit ñi ci jiite nit ñi ci alxuraan di jàngale alxuraan di jàngale alxuraan di yar xeetu yonent yàlla muhammad ci alxuraan di yar xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci alxuraan loolu moo am loolu moo am ñi taxawoo jumaa ji yëpp ñi taxawu jumaa ji yëpp ko dalee ci imam Cheikh Tidiane Cissé. li ko dalee ci imam Cheikh Tidiane Cissé. Mouhamad Cissé. Mouhamad Cissé. Cheikh Cissé. Cheikh Cissé. Cheikh Mahi. Cheikh Mahi. seen taxawaay ci jumaa ji. seen taxawaay ci jumaa ak seen diine bu set. seen diine bu set. loolu yëpp ngeen koy def ngir jàngal nit ñi. loolu yëpp sëriñ bi nag ñu ngi koy def ngir jàngal nit ñi. ne nii la nit war a mel. ne nii la nit war a mel. nii la nit war a mel digganteem ak boromam. ne nii la nit war a mel ci digganteem ak boromam. waaye nii la nit war a mel itam digganteem ak mbokki jaamam yi. waaye nii la nit war a mel it ci digganteem ak mbokki jaamam yi. kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla yokku leen. sëriñ bi ne mu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla yokku leen yaara bi. amiin yàlla yokku leen dëgër. yal na yàlla yokk leen ndëgër la yaara bi. yal na yàlla yokk leen attan responsabilité yi. yal na leen yàlla yokku attan responsabilité yi. nga xam ne. nga xam ne. kenn ci ñun utu ko. kenn ci ñun utu ko. dafa daanu ci sa kaw rek. dafa daanu ci sa kaw rek. ndax noonu la ko yàlla tànnee. ndax noonu la ko yàlla tànnee. yàlla moomu la tànnal la nag. yàlla lu mu la tànnal la. xamal ne mu ngi ci def loxoom. xamal ne mu ngi ci def loxoom. bu ci defutoon loxoom rek dara du taxaw. bu ci defutoon loxoom rek dara du taxaw. ñu ngi leen di ndokkeel beneen yoon. sëriñ bi ne ñu ngi leen di ndokkeel beneen yoon. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa de